Cheikh moo wàcc ci ñetti doomi islam yi muy tawba taqwa istiqaama maam Cheikh Ibra jël ko moom mooy wàcc ñetti doom wàcc ci iman Ibra Faal mooy ñetti doom yi wàcc ci ihsaan mooy musaada muraqaba musaada maarifa bàyyi ñes fii la tënk xam yàlla ci maam Ibra Faal la ko tënk war a teg mooy jërëjëf Maam Ibra Fall que Baye nii la yu tirim karaw gi sëq kenn kenn xamu koo xam ne moo tax mu ne fa rut basi tim rey a ak para wala a sama bil mawla ab Maam Ibra Fall na ko yendem <laughs> Maam Ibra Fall boo ko xool ba mu Fall pàcc bu raase la da i jàlle mu déggu xeliina Seydou Fall ragal da koo raase la koo daal mu déggu xeliina mu yàgg Ibou Diouf jooy ñu ne ko Ibou Diouf looy jooy mu ne man de sopp naa la borom laa ñëw Seydi Barxaama. man you want to dem ci àllaa baay ji dafa ñu war a dem